direction de la santé mère enfant ñoni ni may li ci yéenekaay yi. yéenekaay Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf dogal bi état bi jël jëm ci wàññi njëgu dund yi njaw mang cee l'observateur di ñu xamal ne coow li mi ngi ci mburu mi ak njëgam defarkati fëriñ yi ci réew di mëñe yi ñoo ne ni ñu bëgg a wàññi gi du leen arrangé ba tax ñoom it ñu jël démb décision arrêté seeni machine ne dootuñu defarati fariñ arrêté seeni machine fay ko ne dootuñu walati fëriñ amis di association des meuniers industriels du Sénégal nee nañu bañ a liggéey moo leen Sine lànk ne duñu walati fëriñ tax l'observateur gis ne waxuma la njëgu mburu bu wàññee ko waaye suñu moytul mburu moo nar a ñàkk ci réew mi ndax bu mëñee yi defarul fëriñ boulanger yi duñu am ñu lakke mburu te li ñu yor ci a wàññi ci réew a ñu leen bëgg a teg duñu ko tego lu mu metti metti faste seeni loxo toog bañ a liggéey mu leen gënal di muy jëmale kaw dogalu fay seeni machine bi tey ji lañu koy tàmbale di xaar na kilifa yi woote waxtaan ci nu mu gën a gaawe journal L'Info bind ci xëtam njëkk ne mëñee yi ci réew mi dëkk nañu état bu Sénégal ak i mesure am réew mi quotidien ñu juur jàng ja ma nga ca fëriñ ba fëriñ bi moo xajamal wàññi gi ñu bëgg ci njëgu mburu mi journal tit bi nañu du mëñee yi rekk ñoo xajamal wàññi gi ci njëgu mburu mi ne bu leen weesoo ñoom mëñee yi sóobu ci njattante seen digg ak Ousmane Sonko yi ñoom it nee nañu xel xalaatul ñuy lakk mii su bu nuppi di ko jaaye fanweeri dërëm pétrole bi fañ ci réew mi soleil national mi ngi ñuy ko war a tàmbalee tànqi jaay weer wi di waaj a teroo mu di weeru soleil soleil national lañu bu tàmbalee ci lañuy tàmbalee commercialiser cargaison pétrole yi ñu njëkk a tànqee ca sans pétrolier bu Sangomar li ñuy xayma ne moom la ñu fa war a jële ci pétrole ci 2024 gi yéenekaay bi nee nañu mi ngi toll ci 11 millions 700 mille barigay pétrole ci loolu 4 millions 340 mille barigay pétrole yi ci réew mi la war a des mu des nag léegi ñu xam premier ministre Sénégal bu bees bi di Ousmane Sonko kañ lay dem ci assemblée nationale defi ji déclaration politique générale am journal Le Quotidien moom la xëy di waxtaane ba duñu xamal li yoon wax mooy bu ñu la falee premier ministre ci Sénégal na ko te ba léegi lool boole ca kit fii yi juróom-benn fan juróom-ñetti fan avant muy dem te li des ci ñu clôturer session parlementaire juróom-ñetti fan juin la koy clôturer octobre la ñu koy ubbiwaat ñu ubbi journal le quotidien fekk Kiffa Ajenbergane Kanouté vice présidente bu groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar moom ki kàddoo muy xamle ne bukki wiiri wiiri jaari ndaari ñëw assemblée nationale jàkkaarloog député yi def ab déclaration politique générale loolee mënut ñàkk ci premier ministre premier ministre Sénégal bi fi woon di Aminata Touré mi ngi daanaka ci mboolem yéen a kay ñu xëyandool wax ju wax démb ci émission grand jury bu rajo Futur Média moom la journal xëy di paasante da Macky nangoo doon envoyé spécial bu Emmanuel Macron moom Aminata Touré loolee da koy mettre mal ndax jàpp na ne Macky mënoon naa am lu ko gën ci Afrique la si nañu yemu ca ndax moom Aminata Touré nee na yi fi woon ci réew mi ba ay doomi aadama ñàkk ci seen bakkan waree su bàyyi muy nax yoon da cee war a jóg lijjanti ak régime bi fi ne woon ba ci sax président Macky bu ci taqee baa mu laale ci dañ ko war a jëli ñu dañu ko war a rembourser ba mu mat sëkk yéen a kaay bi nañu mi ngi ko wax keroog samedi ca Bambey ba ñu fay def lancement stratégie de financement ciblé journal duñu wax juróom fukki organisation ak ñeent yu ñu jot a financé ci week-end bi ca Bambey ak lu toll ci benn milliard journal las xëyee moom it xibaar bi ci xëtamu njëkk ak li mu tuddee stratégie bu yees bu état bu Sénégal jëm ci économie sociale ak solidaire ministre bi ñu dénk pàcc boobee ci coronavirus yi dellu si ci réew mi journal bi nañu ci ujaa ji demoon ca màkk daf ci am ñoo xam ne bi ñuy ñibbisi dañu ko ëndaale jàpp 60 bi nee nañu ci ujaaj bi ñuy ñibbisi dañoo ëndaale covid 19 bi waa ministère de la santé nag vox nee nañu li ñu ragal mooy jàngoro ji jaare ci nganale yi ba law ci réew mi